ay ca asalaamaaleykum mbégte laay am jàkkaarloo waat ak yéen waaye mbégte laay am ñëwaat ci seen émission bi nga xam ne yéen ko bëggal seen bopp li ci marché yi li ci marché yi nag nee leen marché bu nekk nañ fa dugg xool jaaykat yi ni ñuy jaaye waaye xool jëndkat yi lu ñuy jënde lépp lu waay di jaay rek incha allah dinañ dem xool lan nan lay demee njaay mi ak jënd bi nan lay demee donc tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy marché Grand Dakar ñu ñëwoon seet ci jaaykat yi fi nekk léegi nag dañuy ci biir ma ci ànd ak samu ñu dugg ci biir xool lan moo xew ci marché bi ay ca samu ñu dem ayca ba tey ñi ngi fi nga xamante ne mooy marché grande Dakar comme ni ma leen ko waxee woon ñi ngi seet si nag benn jaaykat ba nga xamante moom mi ngi jaay ay géej gi ay yéet ay tuufa ay yoxos ay keccax muy benn ndaw nag jeune fii léegi nag dañ koy si ñu micro laaj ko naka marché bi noo def. maa ngi fi. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. yow yaay jaay fii. waaw maa fi jaay instant bi ah, ñu ñëw fekk si la sa place gis fi keccax géej gi yéet tuufa yoxos netatu ah diwtiir ndoxu limon donc euh, naka marché bi. ah bi de ins bi moom pour dire vrai lépp cher moom wa dëgg fa neex yàlla gis ma lu fi yomb xanaa soble. soble daal laa xam ne yomb ndax keccax bi ñu ngi ko doon jëndee kilo 1500 te léegi 2000 nga koy jëndee doo ci am dara fay transport bi mu ñëw loo jaay client yi ñu xeeb ko te wax nañ dëgg dafa metti ins bi kay lépp yokk moom wax dëgg fa neex yàlla. en tant que ndaw ñu fekk la fi nga xamante ne mooy marché ngay jaay te lii yombut foog naa ne xale yu bari duñ ko nangu yeewu bi nan lay demee da ngay teel a jóg dem Castor wala fan ngay duggee. man maa sa caaroy da ngay commandé bagage yi mu ñëw nga fay transport bi mais man nag ma fii laa dëkk su ñëwee nga xool loo ci mën a am boo ci amee benn 300 wala des fois 500 nga ciy am des fois sax nag nga perte mais sant yàlla rek comme que barke la ñuy wut. loolu la rek mel loo leneen. kon danga maa bëgg na yow boo jaayee ni bénéfice bi du bare. boo jaayee des fois mu baax des fois du baax boo perte bu fekkee ne bénéfice bi tey jii nii boo jëndee bagage mu rafet man nga am sens am tuuti bénéfice mais bu fekkee ne bagage bi tamit dafa ñaaw doo ci am bénéfice da ngay obligé wanteer ko. mais marché bi koor gi lay gën a neex wala bu dul koor. koor gi daal sant yàlla ndax des fois 5 heures bi mu neex. des fois tamit ay heures yi ni mën na neex rek sans dépend. ñoo ngi lay jaajëfal baax di la wax yal la yàlla jàppale parce que ndaw biy liggéey dañ koy ñaanal rek ca kaw ca kanam. amiin yéen itam seen télé bi dem ca kanam a kanam incha allah. merci beaucoup. yow daal teel nga noo def ma chérie. ça va bien merci. baa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax. ñu fekk la fi nga xamante ne mooy marché grande Dakar ñu fekk la ngay dugg noo gisee marché bi. ah marché bi moom ku nekk xam na ne jamono gii dafa tar waaw góor ñi nag ñu ngi def lu ñu mën mais marché bi tar na torop si jën yeeg lépp kaani salade ba si jën lépp ku métti dara yomb mais ñoo ngi sant yàlla quand waaw ñu ñaan yàlla suturaan ñu yàlla dina ko may chaque jour dina ko yombalal ci barke yonent bi. lan moo la gën a neex ci marché bi marché weeru koor ak budul koor ban moo ci gën a neex. macha allah koor moom koor moom lépp ngëneel la. da ngay euh, da ngay am souci sax mais yàlla day defar lépp macha allah lépp nice mais dafa chair moom ñu ngi ñaan yàlla Macky ñu ngi naan ñu ngi ñaan Macky président de la république bu bàyyi xel parce que euh, vie bi cher na trop vraiment dafa cher trop ku waxu cher na rek. moom moo gën a cher ci marché bi lépp a cher kaani kaani yi doon jaayee euh, juróom léegi fukki dërëm lay jar ainsi de suite yaa ma gën a xam. mais lan moo gën a yomb xanaa lu amee lu cher na am lu yomb. lépp a li dara yomb non non non saa euh, da bëgg a jënd sa jën da ngay jënd par exemple mu nga jën jën 6000 mais boo ko jëndee glacé lay doon mu yàq sa loxo wala euh, yàpp bi tamit noonu la waaw yàpp bi tamit noonu la dañ koy yokk du yokk rek xam nga nanu wàññi rek waaw. looy wax jaaykat yi. man jaaykat yi duma leen wax dara man jaaykat ñi mag yi ñii euh, ñu ñi nekk ci kaw laay waxal ngir yàlla ak yonent bi nanu xool si miskin yi. noonu xool si pauvreté bi nekk Sénégal métti na trop ku ko waxul rek mooy loolu waaw métti na trop vraiment. yal nañu yàlla jàppale ñu ñëpp saa yu ñu xëyee am lu ñuy nduggee ñu ñuy wecc loolu rek a jarañaa ñoo ngi sant yàlla góor ñi nag ay jàmbaar la ñun ñu ngi def li nu mën allah mais dafa metti nag mais ñu ngi sant yàlla rek. ñoo ngi lay jaajëf waaw d'accord merci beaucoup. Sénégal déglu leen kii ba nu way ko ñoo xamul Abdoulaye Waye. ayca ba tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy marché Grand Dakar seet si jaaykatu jën yi waaw léegi nag ñu ngi taxaw ak benn soxna boo xam ne moom day yëngu ci wàllum jaayum jën léegi nag dañ koy nuyu laaj ko njaay mi demee noo def soxna si. maa ngi sant ngi sant. noo tudd. Soda Ndiaye. Soda ñu fekk la nga xam ne mooy marché Grand Dakar ngay yëngu ci wàllum jën yi donc ma dégg client yi ne léegi lépp a cher jën yi sax ci la bokk. waaw moom lépp cher. cher na trop trop trop trop macha allah cher na trop. képp ku doon liggéey rek yaa ngi ragal ndax jën yu cher xam nga jën moom bu dee dañ koy peser poids léegi ñu koy liggéey bëre fu mu jaar day cher loolu rek moo tax mu cher. xeetu jën ngay jaay nii. ngay jaay sëb jën bu. jën bu mag bu génn bu rafet rek bëgg na rafet rek ma jaay. macha allah sa jën yi rafet na trop macha allah mais cher na tamit kilo ñaata la. donc nii ñu ngi jëndee nii 3200 3500 léeg-léeg ñu jëndee 3800 par kilo. yéen di jaayee fii nii. non ñun dagg dañuy dagg rek teg. mais nu ngeen di dundee lii ak client yi. métti métti torop réew mu métti lool da naan da ngay toog mais doo mën a toog ndax réew mu métti loolu rek macha allah sant yàlla daal. mais ak gi nii macha allah mi ngi dox. mi ngi ndànk-ndànk rek. kon kon it boo doon jaayi pour mu togg jën daa naan togg ma jën ndax jën dafa cher bu ñuy waxaay rek bàyyi waxaay bëgg nañ mais mënuñu da xool sa bopp tamit nga xam ni bëgg nañ mais mënuñu. seeraay bi fan la jóge yéen a ci laxas jaan wala yéen fi ngeen koy wuteel. ñun fi ñu koy jëndee la cher jën bi dañ ko daan këdd léegi dañoo dem ba di ko peese loolu moo tax mu cher. avant daan dama daan ñëw marché mais dama daan gis ñu dagg tëll yi teg teg teg loo am rek ñu jaay la. waaw léegi nag mënatul nekk waaw dañ koy peese moo tax. ñoo ngi lay jaajëfal di la kontaan. ayca ba tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy marché grande Dakar ñëwaat nañ ci beneen place xool si beneen jaaykat. nan lay jaay ak nan la gisee njaay mi ak nan la gisee marché bi noo def sëñ bi. waaw ça va yaa ngi ci jàmm. ñuy sant yàlla wér. fekk la fi nga xamante ne mooy sa place yow ngay jaay ci wàllum ceeb dawlin. ay tomate ay affaire vermicelle mais dama dégg gars yi nee na njaay mi dafa cher. te ñun sax xam nañ ci dara ndaxte kilo ceeb léegi kenn mënu koo laal litre dawlin kenn mënu koo laal lu waral loolu. waaw ah, man tam ñoo ñu jaaxal instant yi nii yi doo ñeme laal diwlin bi. boo xoolee moom waaw ay 18000 la doon jàmm mais instant yii mu si 24000 ceeb bi waxi noppi instant yii bagage doo laal te njaay muy loolu wax dëgg fa yàlla instant yii koor gi moom koor gi muy garañ moom dara doxul waaw bagage yi en plus seer na ah client yi muy loolu bagage yi da nga seer trop rek. kilo ceeb lu muy jar fi mu ne. instant yii parfumé 450 lay jar waaw 450 lay jar. kilo vermicelle. kilo vermicelle 800 waaw. instant yii 1300 ku mu jaayee 1300 1350 ba am am na sax xam ne ñu ngi koy jaay 1400 ñu wut bénéfice koy jaay mais instant yii bagage bi moom lépp tar. mais loolu cher na de sa waaw si ak doole kay bagage yi doo ko ñemee laal bi nan lañ koy dundee client yi. métti rek gisoo instant yii marché mu vidé doo gis dara métti rek waaw. sànq yàlla mooy suturaat rek mais instant yii moom rek. ñu ko client yi di yëgee la ko jaaykat yi di yëgee. waaw ñu ko client yi di lañ koy yëgee ñun tamit ñoo xam nañ sax métti na si ñoom mais suñu ne gën a métti ndax da jël sa xaalis bëgg a dem jëndi mais doo mun jënd bagage nga xamante ne seet si leen xeebuñu kenn nag képp kuy jaay daal nekk ci marché dinañ la seet si yaa xam ngay jaay limon yaa xam ngay jaay gerte caaf mais en tout cas looloo ñu tax a jóg dinañ dem xool jaaykat ni ñuy jaayee waaye itam xool jëndkat yi ni ñuy jëndee ndaxte nee naa leen jaaykat mënu dem jëndkat waaye dem sans jaaykat kon na lépp di rafet ñuy ñaan yàlla rek lépp di yomb maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu ngi woon fi nga xamante nag mooy marché Grand Dakar ah tey nag ki jaar ci may këb bi comme d'habitude rek mooy aji sama doomu ndey salon sopp sëñ Abdou Karim may jaajëfal xale ya fa nekk mbeen soxna sooda di leen jaajëfal bu baax a baax